Thank you.

am gis mbooloo mu takku actuellement nii ñuy wax troisième vague ci réew mii xam ne mooy Sénégal euh, ban yëg-yëg ci am yow en tant que leader. ah man ban yëg-yëg laa ci am muy euh, coronavirus bi mu ci réew mi mais dañ koy nangu ko xam nañ ne am na ñëpp xam nañ ne am na parce que boo xoolee boo xoolee ni place bi man kese maa fi takk max waaw man kese maa fi takk max de troisième vague bi ñuy wax nag ñun ndaw ñi ñoo ko war a ñoo ko war réglé comprendre nga parce que tey jii nii état d'urgence bi amoon couvre-feu yooyu noonu sonal na ndaw yu bëri comprendre nga parce que tey jii nii da ngay gis nit koo xamante ni day liggéey suba ba ngoon du am dara day wàcc 18 heures du am dara guddiment bi la mën a dàqaate wërsëgam comprendre nga guddiment bi la mën a dàqee wërsëgam mais nag ñu ngi ñaan daal président de la république Macky Sall mu dimbali ñu jàppale ñu ñun ay ndaw lañ dañoo toll si août te dañoo war a am suñu waajur dañ ñoo yaakaar waaw parce que tey jii nii nii ndaw ñëpp sonn waaw ñu ngi jooy nag ñun ñëpp a ngi jooy comprendre nga mais nag interdit place bi ak place de football bi lépp mën na ne mais ay couvre-feu loolu mënutul nekk mënutul nekk fii Sénégal comprendre nga mais mën nañ tere place de football yeeg ak euh, géej yeeg yeneen yeneen yeneen yeneen ak yeneen comprend nga yeneen rassemblement yi yëpp mën nañ ko tere comprend ñu respecté nag mesures barrières yi ñu respecté lépp parce que ñu ñoo mën a defar suñu réew comprend nga war a mën a defar suñu réew waaw te réew ndaw soxla ñun ndaw ñu nag ñoo ko war a mën a defar waaw wasalaam asalaamaaleykum maa ngi leen nuyu kilifa waaw maa lay fay frère. ki la laaj tur la Abdou Aziz Ndiaye Abdou Aziz Ndiaye gis nañ ah, pandémie bi muy gën di yokku si réew mi Sénégal ba ñu ngi waxaat ah, mbir mu troisième vague jël nañ ay yoo xamante ne tey ah, pour tëj li nga xamante mooy plage nga xamante mooy jeunesse bi tey yan motuwaay a mën de football yi nga xamante ne ngeen war a mën a féexloo tey ban yëg-yëg ngeen si am waaw mais yëg-yëg bi ñu ci mën am rek mooy comme ñun dañu am benn affaire boobu dañu ko gëm kawaal ñun Sénégal pandémie la ñuy moom la wax ne moo fi est-ce que pandémie bi mi ngi existé ba tey ñu dañoo am problème boobu ba tey bu dee lu am la bu dee ay mag lay rey comme ni ñu ko waxee gëm nañ ne yoonu jeunesse newu ci bu dee ay jeune lay rey gëm nañ ne yoonu mag ñi war ci ne mais comme que dañ ne lu am la te lu existé la moom mi nga xamante ni moom moo décidé pour tëj plage moom moo créé troisième vague suñu gis-gis parce que campagne kenn da ko fay def Sénégal bi Macky Sall ak Bougane Gueye Dany mi ngi taxam ne moom lañ tegal tibb tànk Macky Sall tey bu dëkk bi am demee ba tolli ko troisième vague ñaar ñoo ko créé bu dee dëgg la alors est-ce que tëj nit ñi wala tëj plage yi wala tëj marché yi warul jiitu ci ñoom ñi nga xam ne ñooy def déplacement ni ngi leen topp man question boobu laa am li may peser gouvernement bi quoi comprendre nga parce que c'est bien vrai que am na yeneen maladies yu gën a grave yu gën a catastrophe mais comme Afrique dañuy dañuy dund ci xew lu xew rek moom la ñuy imposer gis nga tëj tëj euh, plage yi tëj marché yi tëj bureau de travail dafa am lu ko jiitu mooy fexe jeunes yi am emploi job xam nga fexe xam-xamu mag ñi màcc ci paj mi pajum olof mu ñu valider ko mu dem comprendre nga fexe nit ñi am xel mu dal ba toog seen biir kër yi kenn du leen tëj mais Sénégal particulièrement dakaar du dëkk bu ñuy tëj parce que ku jaaxle fii ngay jublu ku tiit fii ngay yuuxoo ku feebar fii nga war a fajoo tey boo tëjee foofu noonu ndax benn maladie maladie boobu lan moo koy freiner nit ñi ñoo war a déplacé wu freiner bi nit ñi ñoo war a toog pour maladie bi denc. gis nañ noonu la war a demee ñu def deuxième vague mu gën a bari troisième vague gouvernement bi ñoom ñoo ko créé te créé loo xamante ne nii invisiblement la quoi yow corona mosoo ko gis sida lu am la da nga ko ma a gis cardiaque da nga ko mës a gis c'est bien vrai que yooyu mi ngi ray mais yooyu ñu mës a gis te muy ray ba tey ñu koy muñ nañ bàyyi corona ngi dund ak moom tamit ñuy ray ñu koy muñ bu dee am na man loolu mooy sama xalaat quoi <laughs> loolu laa amoo di jox <laughs> di gërëm ndax yow tey li ngay def nii sa liggéey rafet na ndax yaa ngi sensibiliser ndaw ñi ah tey jii ñun dëgg ko quoi corona am na senegal am ñu ko gëm am ñoom dina gëmuñu ko ah nag gis nga tey jii lu mu si ay doom aaram yëpp yaa ngi dégg tey ñun ndaw ñi ñoo mën a dimbal suñu bopp ndax président bi moom deful lu dul rôle am quoi comprendre nga tey boo xoolee place bi tey bëri na ay nit fàtte nañ ne pandémie bi mu ngi si dëkk bi yaa may dégg tey ñu ñoo mën a dimbali suñu bopp nax tey gars yi ku la naan sangul moom sa taar la la bëggal yaa ngi ñun nag moom duñ def lu dul xam nga gëm service rek tax suñuy masque yor suñuy gel di di di di doxalee kon gars yi ñu ko waxee rek mais tamit benn affaire dafa am quoi Sénégal benn affaire dafa am Sénégal corona corona corona ñun am na ñu bëri ñoo xam ne dañuy dégg corona corona mais la ma doon gëmuñu ko wanaguñ leen preuve tax ñu naan corona am na am na wala amul man maa ngi nii damay takk masque gisaguma ko corona rey gisaguma ko corona feebar ah gisaguma corona gisaguma ko corona mais tamit dañoo am ay njiit nañ respecté télé bi heure seetaan kilifa diine yi wax da leen takk masque day topp seen ginnaaw comprendre nga mais tamit di wax sama mbokku jeunes yi rek nañ respecté affaire yi xam nga gëm seen bopp tamit xam ne carrément ñun amuñ lu dul ay njiit nañ topp seen ginnaaw di bu baax nag ndax yow yaa def sa liggéey yaa ngi war di xama di laaj gars yi tey ñun mooy loolu daal ok jaajëf waaleykum salaam ñoo ngi lay fay di la ziar di la jox sa wàccuwaay di la laaj tribunal la maam Abdou Aziz Diop maam Abdou Aziz Diop gis nañ li nga xam ne mooy troisième vague ñëwaat na si réew mi Sénégal actuellement que yenn milieu public yi ñu commencé di ko arrêté rassemblement bi bari lool ñëw si place bi si mbaaw gis fi rassemblement bu baree baree bari te actuellement nañ pandémie bi mu ngi si mu ngi wàlle te jeunes jeunes lay ëpp lu muy dal ñu koy waal li nga xam ne mooy mag ñi tey ban gis-gis nga si am waaw sama gis-gis mooy covid bi ñun ak état bi dañoo bëri réeroo parce que état bi nga xamante ne solo waxee nombre cas am na doo ko mën a gëm parce que daf ñoo yàgg wax lu si amul moo taxit problème communication boobu communication boobu moo am par rapport ak corps médical bi ak par rapport ak gouvernement bi ak par rapport ak nit ñi askan bi moo taxit tey état lu mu mënti wax ci Covid. même mu am mu ñàkk am nit ñi gëmuñu ko à cent pour cent donc là c' est un problème fondamental que gëm naa ni gouvernement bi war nañ si jël waay bu am solo bu am solo waaw su ma la déggee ma Abdou mooy que maanaam que communication état bi nga xam ne def na ko si feebar bi moom moo nekk loo xamante ne nii am na lu muy jiix jaxas si xelu ndaw ñi waaw man personnellement moom état lu ma jot wax yëpp mosuma see gëm dara mm-hmm. mosuma see gëm dara peut être sëñ bi sax bañ commencé indi yenn wax yi ak yenn médecins yi ma dégg leen corps médical bi ñu wax si si laa soogu mën gëm mais état bi soo xoolee troisième vague bi soo xoolee lu ñu naan lu ko fi indi ñu ne suñu président jiitu réew bi da foog naa ne ku toll jiitu réew bi bala ngay def tournée di nga waxtaan ak say conseil di waxtaan ak ministère de la santé ak ñoom seen donc su ñu demee bay wax troisième vague te ñu ni président bee ko indi donc je pense que problème am na waaw. état d'urgence bi nga xam ne euh, ñu ngi ko bëgg a indiwaat ci réew mi loolu euh, ban yi ngeen ci am mooy maanaam arrêté waat lii lépp loo xamante ne dana fi am parce que gis bi passé maanaam chômage bi mu indi ci réew mi. Ah, état d'urgence bi moom dama jàpp ne ab caaxaan la rek ab caaxaan weesuwul état bi ñëw génn def tournée am wër wëndeelu Sénégal bi yëpp ñëw ñu tas tas feebar bi ñëw ne day état d'urgence ndax virus bi guddi lay dox ndoola bëccëg lay dox ah. peut-être ma wàññeeku mais gaw ma ni moom mooy solution bi wax dëgg fa neex yàlla gaw ma ni mooy solution bi. ah merci beaucoup ñu lay jaajëfal. Ah, ok jaajëf jërëjëf ok jërëjëf. am na solo ah ah waaw <laughs> na solo de. Ah? asalaamaaleykum maa ngi leen nuyu. waaleykum salaam maa ngi lay fay ku baax. dina laaj tur la. waaw Mass Badiane laa ñu gën xam ci Pape Seye. Mass Badiane euh, ñu gis li nga xamante ne tey euh, mooy Covid 19 bi yokkaat na troisième vague ñëw na te ñu gis boobu ba léegi euh, mbooloom yaa ngi rassemblé si place publique yeeg fu nekk ba ci nga xamante mooy place Mbao bi tey si tey mbooloo mu baree bari tey mu ngi fi ba nit yi nga ci waaw en fait genre li ma si xam moom mooy comme niñ koy waxee rek corona bi ku nekk ak ni koy gisee quoi ñii gëm nañ ko ñii gëmuñu ko ñi ñu waroon dimbali mooy suñu chef d'état bi quoi et puis homme tamit fi lañ gis Macky Sall suñu président en plein corona muy def ay tournée moom moo fi yokkaay quoi garde rapprochée yeeg comprendre nga gendarmerie ñëpp di jaxasoo population bi ñëpp jaxasoo respecté mesure kenn respecté wul dara contact bi daw ñu indiwaat troisième vague au fait nañ ñu arrêté yi quoi ñu tetañu wax ñu. mbas mi nii lay demee lii moo koy indi li ko indi mooy tàncaloo nit ñu bëri moo koy indi ba pare yow nga gën def tournée sar ñoom ñoo yokk corona bi quoi troisième vague boo amee ma Sall moo ko provoqué population bi defuñu dara ñëpp respecté nañ seen mesure mais moom moo yokk troisième moo moo indi troisième vague quoi au fait nañ bàyyi corona bi ñuy politiquer quoi man loolu laa gis. Euh, euh, waaw mais duñ si d' accord parce que mënuñu gëm ne corona day lore comprendre nga nga ñëw def tournée kaay yokkaat sar à yow nan lañ koy gëmee ko duñ ko nangu am nañu ay activité dañu war a dox war a tëdd toog war a dundal say njaboot au fait mooy loolu waa loolu duñ ko nangu benn ci man man moom du ma ko nangu waaw. jaajëf ñoo ko bokk ok. Ibou Diouf ñu gis euh, jamono ji troisième vague bi ñu wax ñëwaat na ci réew mi actuellement cas yi ñu ngi gën di yokk chaque jour mais ñu gis plage yi. rassemblement bi bari na fi loolu te ñu ne feebar bi day bañ li nga xam ne mooy rassemblement yéen en tant que jeunesse bi ah, waaw li nga wax moom dëgg la dañ koy rafetlu bu baax bon bu dee ñoom li ñuy wax dëgg la ko bon man moom ànduma si waaw waaw bu dee ñoom li ñuy wax daal dëgg la quoi man ànduma si waaw nañ leen respecté mesures yi xamoon place daal pour man waratul am quoi bu dee dëgg la waaw man loolu laa gis ko mais am na yeneen Sénégal yi gëmul fi euh, corona. waaw ñooñ parce que seen gëm-gëm la rek xam nga kenn ku nekk sa tolluwaay la xama nga tey ji buñ nee corona am na troisième vague après ñu gis monsieur le ministre def xam rek yaa ma gën a xam tëbram bi tëm yaa asugay yooyu noonu xam nga xam nga gars yi tamit buñ ñëwaatee wax troisième vague am na na kenn ku nekk tëju affaire yooyu xam nga gars yi dañuy bañ waaw kay mu ngi noonu nag waaw mais bu dee troisième vague am na moom nañ dellu si lu luñ nekkoon rek jàmm am Sénégal jëm kanam voilà sëñ Fallou asalaamaaleykum kii maa ngi lay nuyu. na ngeen def. alhamdulilah. laaj tur bi nan la. man maay Eumeu Sène. Eumeu gis ngeen ngeen ñëw fi nga xamante ne mooy plage bu Mbaaw. gis nañu li nga xamante ne mooy pandémie bi mu gën a yokku coronavirus ah boobu ba léegi ñu ngi koy wax. mais seen place Mbao ay bëri ay mbooloo ñëpp a ngi ñëw te di rassembler te ñu ne feebar bi bañ a rassemblement te bay lan ngay wax ci loolu. waaw ñu jël ñu moytu rek quoi comme ni ñu koy laam-laamee quoi. ñu jël ma euh, distance yi ñu respecté ko ko quoi comme feebar bi ñu nga naan am na bari na bariwul te dajaloo lay bañ ñu moytu quoi comme médecin yi loolu lañ jàng ñu déglu leen quoi comprendre nga ñu déglu médecin yi lu ñu wax rek ñu jéem a respecté mesures barrières yi quoi moo gën a kii quoi voilà. waaw neexut a gëm ay waaw parce que man mi sax si laa bokk bokk ba si ñu ko gëm parce que nuñ ko nuñ ko nuñ ko information bi moo des quoi. parce que ñu ñu jiite dañuy def lu leen neex ba pare bëgg ñu imposer loo xam ne dafay mooy problème bi quoi boo jiitee da ngay nekk kaay yow yaay mais munoo war dëkk bi ba pare bëgg a tëj nit ñi loolu du yoon yaa ma dégg loolu mooy problème gouvernement Sénégal quoi ñoom dañu organiser wul quoi voilà du dañ dul ay exemple ñoom boo jiitee réew dañ ngay nekk exemple jiite ko sa bopp mais mënoo wër réew ba pare bëgg a tëj gars day metti ko voilà.